jërë ngeen jëf borom baax baaxa ay mbiram ñoo xëy di jax yi ci yéen a kaay ñu xëyandol bi l'observateur Serigne Modou Kara Mbacké daara de redressement yu ne moom keroog ba fa sandarmay wàccee ñeent fukki nit ak juróom ñu fa jàppoon ñoom ñëpp daje nañu ak juróom yi ñu mandat dépôt ba yóbbu leen kaso l'observateur xëy nañu indil seeni tur ci page am am na nag ñaar ñu ca daw kenn ku tudd Seydi Sane am na nag ñaar ñu ca daw kenn ku tudd Seydou Sané ak keneen koo xam ne ba léegi xamuñu aw turam ko tuddee ci seenu ndodd journal bi nee nañu tuumay torture la traite de personne ak blanchiment capitaux l'observateur dem ci ba di ñu xamal ne tuuma yi ñu leen di toppee bu ko yoon dëggalee fukki ati kaso ba kaso ci mën na lañ caa fekk ñu fekk ba tey coowal centre de redressement yi ci xët mu njëkk source wa journal bi dañu xamal ne lu jëm ci mbiri Kara sécurité ñeen fukk ak ñett yee ñu ca jàppoon fanweer ak juróom-ñaare ñoo nga ca kaso bu Cap Manuel juge bu ci cabinet moo leen waa nee nañu mbirum association malfaiteur manga ca li ko mbiri sax dafay tàmbalee photo ñu ci Serigne Modou Kara ndax gaayam yi mandat dépôt nañu leen avocat yi leen waroon a défendre di maître Aladji Diouf ak maître Bamba Cissé génn nañu ci baset wecc lii quotidien nañu Kara nee na Cheikh Amadou Bamba doy na ko avocat moom ci jëmi boppam di Serigne Modou Kara moo renvoyé maître Bamba Cissé ak maître Aladji Diouf yi ko waroon a défensal Mansour Faye ma mu ci wax moo di képp ku jàpp ne autoroute APS bi dafa seer da wàcc jël route nationale bi latir bi nañu gorob Macky Sall bi di Mansour Faye mooy ministre bi gën a naat ci gouvernement bu Macky Sall bi ne ab budget mi ngi toll ci milliards na express national bi ñuy wax ne tey lay départ ak suba lay départ ak départ ku gàttu fan doo ko fekke ñu fekkante ci le témoin fekki fa duuduka administrateur FONGIP ba woon di duuduka journal le la fa FONGIP ba mu mel ne soow mu jinne gi ñu jéggat ndànk ba ci Walf Quotidien njiital conseil économique social environnemental di Idrissa Seck moom la xëye ak njuumte di faux pas protocolaire moom la ndaamal Kajoor def message mu yónnee président bu Amérique di Joe Biden di ko ca félicité ci ndombal tànk lu mu takkal Cecilia Elena Moos sa Moustapha Diakhaté gis ne yi Idrissa Seck juum na ca ba xalango bi njëkk ca njuumte ya moo di du moom yi Idrissa Seck moo ko def ñaareel ba di Joe Biden mi muy félicité américain yi ko fal sax installé guñu ko officiellement li officiel dëgg moo woppi coronavirus ji ak ni mu mel ci réew mi guddi yi ñu toll l'observateur nee nañu feebar bi du ay caaxaan ndax mu ni waatee ci réew mi ak léegi rek faat na fi fukki doomi aadama ak ñeent démb rek dégg nañu ñaari nit yu ñàkk seen bakkan ci réew mi ndax coronavirus bi nañu ñi gën amuk jaaxle ci coronavirus bi ba tax ñu tëgg seen gémmiñ di yëglu ñooy syndicat yi jaboote ay jàngalekat ci réew mi ndax gis nañu ne li protocole sanitaire bi santaane respecté wuñu ko ci école yu bari ba bu ñuy wax waxi deuxième vague ñoom ci jaaxle la ñuy nekk ndax nee nañu bu ñu seetaane ba coronavirus bi mu dugg ci l'école yi ñu ñàkk yi ñuy wax ci àdduna bi ngir bëgg ko fàggu mbas mi ñëpp daw wutali ko ngir fàggoo ko mbas mi li jaralaaj moo di ndax matuwaay yi mu laaj ñi ngi koy bàyyi xel